waaw yooyu ay nax la waaye yooyu ay nax xam nga assemblée bi le président qui va venir en avril 2024 lay lañ koy lañ koy installé lu mu gaaw gaaw lu mu gaaw gaaw mënul installé en avril 2024 lañ koy installé lu mu gaaw gaaw mënul organiser élection législative bala septembre octobre te septembre mun na dissoudre assemblée nationale bi bu ko neexee donc xam nga naxaate yi dafa bëri ci réew mi te jàpp naa ni tamit ñu war a gën a leeral mbir mi dañuy taxaw di seetaan parce que amul fenn au monde fi ñu may benn président de la république saa yu ko neexee mu dissoudre assemblée nationale ci coobare boppam te amul àpp amul limite amul tamit raison dissolution fu ñu ko def contrepartie la ci pouvoir bi assemblée nationale am def motion de censure contre non pas le gouvernement seulement mais celui qui décide de la politique de la nation pour parce que s'ils sont pas d'accord avec la façon dont la politique est il, il, il, demande à celui qui définit de se démettre bu dee États-Unis dañ koy tuddee impeachment bu dee France wala feneen ñu tudde ko euh, euh, motion de censure waaye fii président de la République moom du ñëw assemblée nationale du rendre compte assemblée nationale assemblée nationale mënul ci moom dara xanaa haute trahison donc moom dafa dafa assemblée mënul ci moom dara ba pare moom mu am sañ-sañu dissoudre assemblée nationale donc ana équilibre des pouvoirs bu ñu doon wax ana yamale bi nga xam ne dañu jox gëdd assemblée nationale pour mu saytul askan wi ak càmbaral askan wi euh, li li président de la république def parce que bu ñu fàtte ni fii exécutif bi du premier ministre moo ko diriger exécutif bi président de la république moo ko décidé moo ko diriger moom mooy définir politique de la nation moom mooy nommer à tous les emplois civils et militaires moom mooy def extra extra moom mooy def cap euh, euh, politique étrangère moom mooy yore force de défense et de sécurité yi donc moom mooy vrai exécutif bi te parlement c'est pour contrôler l'exécutif et yamale doole exécutif bi bu ëppalee bu ne ko ëppal nga waaye fii président de la république parlement mënul ci moom dara premier ministre rek la mën a def motion de censure et encore benn yoon par session te président moom saa yu ko neexee bu xëyee mu ngelaw sax mu ne ne mun na ne mun naa dissoudre parlement bi pour que ngelaw mi arrêté wala coow réew mi arrêté loolu ñu ko c'est amul fenn fu mu amoon moon qu'on soit sérieux et bi débat bi war woon am fi nga xam ne la fa président de la république nee na renoncé na à la troisième candidature moom mu ngi seet ci kanam ñun tamit dañu waroon nekk ci débattre débattre ay programme lu delloo ci nag ay débat yi nga xam ne depuis mille ay révision constitution téye suñu constitution bi comme un torchon loolu c'est pas normal. en yooyu calcul yooyu weesu na. calcul yooyu weesu na jàpp naa ñu ñoom dinañ retirer kii bi texte bi la ñu ñoom ci seen bopp duñ ko voté da nga def ne gars yi tamit xam nga foofu ngay xamee ne sax député bi du intérêt nation bi moo ko taxaw taxa taxaw parce que bu fekkee ni texte bu ñëw ngeen voté ko mais ñu ne texte pour dissoudre leen yéen rek ngeen bañ <laughs> ça seen intérêt bopp moo leen tax a kii mais ñoom ñoom ci seen wàllu bopp xam nañu bu ja bu ñëwee député Benno Bokk ko yaakaar yi dina am ñu ko dul voté waaye waa Wallu ak Yewwi moom duñ ko voté ba ilaa yow mi diin Pape. Alors, je voudrais dire d'abord que l'ouverture de la session, ce qu'il y a à déplorer, c'est l'habituel retard de plus d'une sans aucune explication. Le président s'est présenté en, en, en 3-4 minutes. Il est le seul avoir dit quelque chose et il s'est retiré sans... Voilà. C'est pas respecter l'opinion, le pays, la nation, que de venir toujours avec une heure de retard, deux de retard. c'est un, point de remarque. Mais pour le reste, effectivement, la procédure suivie est normale. Il y a le quorum et la conférence des présidents ainsi que le bureau vont se réunir pour définir l'agenda suivant lequel on va examiner les textes qui sont soumis à l'attention de l'Assemblée nationale. Ceci dit, ces textes-là, notamment en ce qui concerne la révision de la Constitution qui euh, permettrait au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale à sa guise et à sa convenance est une atteinte fondamentale au principe de la séparation des pouvoirs et à l'équilibre des pouvoirs. Parce qu'on donne des pouvoirs exorbitants du président de la République à sa guise et sans aucune raison valable de dissoudre. Sous le prétexte fallacieux de coupler les agendas entre la présidentielle et les législatives et de rationaliser. c'est une contradiction d'ailleurs flagrante. Dès l'instant où le président peut dissoudre, il peut donc de ce fait découpler les, les élections présidentielles, l'élection présidentielle des législatives. La seule façon de coupler définitivement, <laughs> justement, ces deux agendas, c'est de faire en sorte qu'on enlève au président le pouvoir de dissolution. Et comme ça, quand on fera les législatives et la présidentielle ensemble, plus jamais il ne pourra remettre en cause cet agenda. Donc ça n'a aucun sens. Et ça, cette, cet argument qu'ils utilisent trahit leur, leur mépris vis-à-vis -vis de l'opinion. D'ailleurs, le climat nauséeux à bon qu'on a installé, où leurs propres députés ne se retrouvent pas dans la proposition qui est, le projet qui est fait, où on dit qu'il aurait peut-être même des velléités, lui, le président sortant, de faire en sorte que qu'il dissolve l'Assemblée nationale, euh, qu'il dissoute l'Assemblée nationale à, et qu'il fasse coïncider la prochaine présidentielle avec les législatives, qu'il soit à la tête de file de, de, de la liste législative et qu'il qu batte campagne pour son dauphin. Tout ça montre, bon je ne crois pas à ça, mais ça montre combien les débats sont devenus très bas dans ce pays-là. Au moment où on devrait parler des jeunes qui sont en train de mourir en mer, au moment où on devrait parler du chômage immense des jeunes, au moment où on devrait parler de l'université de Dakar qui est pour ainsi dire renvoyée en vacances ad aeternam vitam. C'est des questions prégnantes qui nous occupent et on devrait pour une fois discuter de, débat, de, de programme. Je vous remercie. Oui, oui. le président de la République du nekk wax avenir lu mu doon ñu mën a coûté ñu yi ñu bëgg président bu bëgg a oh, yooyu incha allah dina parce que yooyu si dialogue dialogue bi ah, ñuy wàññi ñëpp d'accord nañ ci parquet financier bi génn ñëpp ñoo doon critiqué CREI bi tey bu ñu amee parquet financier nekk na lu am solo évolution la war nañ ci war nañ ko war nañ ko waxtaanee électoral bi nekk na lu am solo pour suñu démocratie dañ ciy waxtaan et je pense que yëpp ay avancées démocratiques la ñu war ci jublu lu gaaw avant ñu dem ci élection présidentielle parce que bii pa Sénégal yi tànn seen président en toute responsabilité. Euh, honorable am na benn euh, ci parrainage bi yaa ko doon wax sànq parrainage bi. Euh, yaa am na benn aspect bu ñu dugal le nombre de députés. yu mm. war a parrainer les candidats. Mm. mais loolu tam du moyen de pour filtrer. Mm. yenn candidats dañ ne woon xam nga dañ ne woon buñ ne parrainage ak chiffre bi ñu joxe. parti yu mag yi bu ñu jógee bu ñu jëlee li ñuy jël parti yu ndaw duñ dese dara wala ay doublon la ñuy am moo tax ñu ne bu ñu defee parrainage ak les ak les maires et les présidents départementaux ak les députés tey xam nga taxawu am na treize députés quatorze députés euh, Pastef am na ko PUR am na ko Benno Bokk Yaakaar am na ko kon jàpp nga ni parti yëpp soxla ñu soxla ñu parrainage kon dañuy bàyyi parrainage citoyen bi ak parti yëpp ba pare wàññi ko pour que le maximum mën ko am pour mën nekk candidat donc avancé la du galgal avancé la. ah on est dans une république les élections coûtent des millions aux citoyens on peut permettre ku jóge nekk candidat def sa benn mille après nga dem de sa CV na j'ai été candidat à l'élection présidentielle dugg di ut non ça pas marcher comme ça dans un pays comme le président il faut avoir la représentativité et c'est un minimum je pense. Oui, nous, on est totalement opposés à ce texte-là. Euh, non pas parce qu'il y a une pression d'ordre pour nous dire non, reculer. Non, non, non, non. On est opposés parce qu'on nous a obtenu euh, euh exposé des motifs avec trois bouts de phase où on nous dit qu'il faut rationaliser le calendrier électoral. C'est quelque chose qu'on ne peut plus entendre dans ce pays-là. Il faut arrêter. Si les élections doivent Comment on peut nous dire que dans un pays qui vote un budget à 6 Les élections, ce n'est pas histoire d'élire une personne, un président ou un homme. C'est un moment de respiration démocratique où les populations s'expriment. Nous avons dans ce pays-là une population qui explose, qui est jeune, qui est dynamique, qui est vibrante, mais qui quelquefois aussi peut être très violente. Mais si on veut que les populations puissent s'exprimer et, et, désamorcer la radicalité, il faut qu'on multiplie les élections, qu'on multiplie les consultations populaires. on ne peut pas nous dire qu'on va besoin de rationaliser. C'est impertinent, inconséquent. Et partant de là, nous ne soutiendrons pas ce texte-là. Quoi nous en coûte, on votera contre. Et c'est pour ça qu'on votera contre, en toute responsabilité, en toute maturité. Je pense que c'est un texte qui est, intéressant, puisqu'il y a une évolution. Aujourd'hui, on a un parrainage parlementaire qui permet aux, aux forces politiques organisées de recourir à leurs députés ou à leurs élus, qu'ils soient maires ou présidents de départemental. Ce sereinement au parrainage et d'éviter les doublons. On a même mis un comité de contrôle qui permet aux gens de voir le doublon avant d'arriver au conseil constitutionnel. Je pense que c'est une avancée. Maintenant, on exige du fichier. Je pense que c'est un minimum pour quelqu'un qui veut candidat de président du Sénégal.